nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay simbali xam wax la li xew ci réew maskan sunu gaal gi yëgle gi ak dirigé xëccoo ak moom ab sénégalais da koo bëgg rek dañuy xëccoo bay xëccoo bay xëccoo ci jumaa yeeg jàkka yi ña nga xamante ne ñooy jiite l'observateur yëgle kaay ni ma demal ca tefes laa la wax xëccoo ba fa amoon ni tulleeg manle ñaari imam ku ci nekk ni maay jiite jiite jiite ku ne ni maa war a jiite yëgle kaay gi naan man julli jumaa de lañ doon jiite jullik àjjuma ubbil yéene kaay tax ñaari imam yi songoo ni rénkum ak seeni dara ëpp law kuya naaw ey way gisunu mbaxana ëpp law kurus ya wadd yëglekaay gi naan man ñaari imaam ya dankali ko di dóorante ndi xeex ngir jiite jumaa yëglekaay gi naan man préfet fa jaar daan ni tëjal ma jumaa jile fan la fa tefes yëglekaay gi naan man lépp leen na nañ kay ni aw bëccëg moo jiite ndax lan moo tax gaa gaañi bëgg ko kilifa yi ku ne di xëccoo jiite ku ne naan maa war a jiite maa lay jiite de yaa may da koo gën a gaaw gën diriger gi ci réewum askan sunu gaal moo ndax gaañee jiitee ka diriger dañ ci mos dara moo ne ñun ñi ngeen di jiite de koppar taxul ngeen ñuy jiite ngëm gu dëgër këcc tax ñu wàcc leen sunu kanam ngeen di doxal kii li muy doxal duñu ci wax système bii kaay ñu wax ci nag moom mooy jiite ak gaynde yi waa mooy coach bi duñu ci wax moom itam yëgle kaay gi naan man Aliou Cissé ak système am Cissé comme ça l'observateur yëgle kaay naan man système de jeu a Cissé bii nag en question dëgg la jéemati échec bëgg a continuer di jéem bem système bii rek bëgg nu cee rey lii du nu ci wax am na ñoo xam ni nag dëgër bopp nag ca dëgg-dëgg seen mbir am na ci ñooñ laa wax njur tojul seen bopp laa wax l'observateur yëgle kaay naan maan bu dee système bi ngay wax moom bi Aliou lu ci am ba des daal kaay ma xamal la ñun ñoo jël avant ndaare ci sunu poul wëtëtëtët bu nu wattuwul toog de ay waay nanu xoolaat li ñuy def de amaat nan geneen match ci kanam de da seet liir yi ñii dooni gaynde di ay ndaanaan di faible bay faible ci seenub dëkk xullee bañ leen di neutraliser duñu ci wax champion d'Afrique bu toll ni Sénégal équipe yu ndaw ndawaan yi di diiranteeg mbagg ba naan faalanu wunaanaak lijjante wunu la ëpp la bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala lebe yëglekaay naan la ñu def ko yëglekaay naan daa tontu naan ay waaye ku wax naan sama plan baaxul waxoo dëgg <laughs> ay waaye te a tontoon teg Sénégalais yi le système boo xamante ne buñ la dumawul nga samp ni jasim waa ñun fu nu jëm naan maan match ba de neex baaxoon na waaye li ma gën a yéem te jaaxal ma ca match ba mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo di joueur Burkina Faso yi ci jëmi boppam gi bu match bi jàllee ak laata match bi danoo génn seen téléphone portable di filmer chef d'œuvre bu am solo bu am solo bu mucc ayib bi nga xamante ne moo di stade Abdoulaye Wade bi ki Sall jël jox ko askanu sunu gaale yi dëgg dëgg Sall ngaari merci thank you jaarama stade bi noyis na taarix la wayu du fay su su ay yëglekaay naan man ak lu mën a xew gaynde yi ma gis moom tiitalu tuunu jaaxal tuunu kenn laa wax courant ci réew mi bu tayee ñu ne am nan ko ba géejal ko bu subaa ñu ne bu wattuwul ñu ñàkk ko carotte bi ak toble sec pomme terre bi yëglekaay man kaay ci jëmi boppam yëglekaay gi neen am na sax gox goxaan yi mu jot a commencé tàmbaleem leneen lii bëgg a manqué ci réew mi yëglekaay gi naan man ngor la ak yéene nit ki jàmm ak la mu yor libération yëglekaay naan man kaay ma xamal ci lu jëm ci wàllu milieu fecc mi danse bi ci jëmi lan fa nemmee ko yéeme te doy waar jalousie liggéeyante bu mel ni tulleeg màlle yàqante bi tous les coups sont permis ku ne loo xalaata def sa waaye ngir mu war na wàcc nga mën a jël place am nga di ko jéem a def man de foogoon naa ne liggéeyante sëriñun tugg ci làmb ji rek la yem waaye ndekete ca pecc ma la ëppee grand panel yëgle kaay nan man nan wax ci wàllum mbay waa ñooro ci jëmi boppam bu nu wattuwul jafe-jafe bu rëy bu ngand bu ponkal la ñu nar a am liggéey si la njéeréer yi song wópp la fu nu jëm ak lii quatrième édition journée set setal suñu réew la soleil yëgle naan man boole kook sensibilisation gu fatt taraj lees nar a nemmeeku yëgle kaay gi naan man kaay ma wax la waa maatama xewle ña nga fa séene accueillir ki nga xamante mooy le premier ministre yëgle gi naan man Ousmane Sonko ñu waxtaan nag ci ñi nga xamante ñooy dem ci géej gi ñuy faatu ci accident yi reyante bi ci réew mi yëglekaay naan man Bassirou Diomaye Diakhar Faye ña doon wax os ñëpp noppi leen moom Bassirou mi président de la république Sénégal moo effacé os ba bés bi la jour yëglekaay naan man indi ñu la treize Sud Quotidien yëglekaay naan man bu doon dagar wala la koy nemmeeku ci ab récréation fi mu ni tembe jàppal ni Diomaye sifli na feega dugg ci kuur yi kalaat récréation ba jeex na yëglekaay gi déclaration politique générale ba nee la le treize lu ci waay man moo yor ca gul gu yam moo yor kàddu gu mujj yooyu gaa dajaloo nan ca Masaalikul Jinaan de oh uppatalo kenn du laal yoo oh, maa la ko wax de sëñ bi boo mënta tàgg boo mënta waxi mbaaxam wax ab defaram ci taalibe yi waxi njariñam waxi ndimbalem ci jaboot gi ak ci murit yi ak ci askan wi waay waay rekk waay noppil moo gën ngay wax safaan ba wal fajiri quotidien yëglekaay naan la ñu amal ca Masaalikul Jinaan murit yi nag la ñuy réclamer mooy boppam Cheikh fàtte sëñ Bamba fawul fawuluwul de nay leer sant la ko yàlla mbaa nga nopp waa lii moom duna ko noppee les échos yëgle kaay naan man faaw ñu wax ci ca Italie waa sunu benn doom boo xamante ne aw Sénégal la fukki at ak juróom benn la am maanaam 16 ans da doon dimbali aw xaritam ñu faat ko lii duñu ci wax ay eh waay doy na waar sëy bu baax rek bu sama clavier ak jàmm ak salaam a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Cakin Diouf jërë ngeen jëf jaa ngeen jëfaat mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ci topp gi ak teewlu gi ngeen ñuy teewlu saa su nekk di déglu revue de presse bi également ñu ngi leen ci kontaane bu baax a baax a baax a baax kenn ku ci nekk ci yéen ñi ñuy teewlu nag ñëpp bëgg nañ leen jox leen seen wàcc waaye kontaane leen di leen wax ne doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen ñi ñuy teewlu ak di ñu bàyyi xel la ba faax ba tax na saa su nekk rek ñuy bég am mbégte ak contentement di ànd ak yéen de presse bi tarkal Ah, macha allah macha allah kontaan nañ ci yéen ñëpp macha allah vraiment ah. bëgg nañ bu baax a baax baax di leen wax ni kontaan nañ leen kontaan nañ ah waa système bi ah en tout cas daal li nu mérito lan am de ci fin match bi parce que kenn xamul daal match bi ku ko seetaan dëgg dëgg dëgg xam ni on a des mais on problème de placement am nañ ay joueurs am nañ ay joueurs dëgg la ku am Sadio Mané. Ilimaan Ndiaye ku toll ni moom nga téye ko ba quatre-vingt-dixième minute nga koy dugal loolu sax sa choix la loolu sama yoon ci mais on on a des joueurs de qualité Pape Gueye kan mooy moom ci réew mi ay Nicolas on a des joueurs de qualité mais on a de un, problème de placement c'est ça notre véritable sunu dëggi dëggi problème mooy problème mu placement waaw joueur fu mu war a taxaw fu mu war a tege kan moo war a yóbbu bal beeg kan moo ko war a jël si problème boobu lan amoon boo bëggee di yéeg di wàcc Ismaïla Sarr loolu mun ne da ngay sonn Sadio Mané loolu mënut ne da ngay sonn Nicolas mënoo topp terrain bi di daw rek da ngay sonn da ngay sonn c'est ça suñu véritable problème loolu la seeni it moo ñu ci génne sax mais dañoo war a na encaisser lu bari mais seeni Dieng euh, il est brave jàmbaar la ngan di jàmbaar la du mu ndaw sax waaw seeni Dieng gardien waaw ma ni jàmbaar la jàmbaar la de seeni jàmbaar la ndax xam naa ne jàpp na fa bale yoo xamante ni moom mu jóge daa mel ni kuy défendre mel ni ab ab ab libéro waaw donc donc il est temps que ñu ñu ñu ñu def quatre quatre deux moom la ñu xam du ñu ko def ah man de man daal nag réew mi jaaxal na ma wala ñu def quatre trois trois du loolu lan xam am am de am am am libéro am stoppeur am latéral gauche am latéral droite du lool la xam ah milieu terrain nga am ñetti milieu terrain ñetti attaquant du loolu waa loolu lan moo tax ñun mënatuñ koo futbale wala boog dañu koo tere ah yenn nag de xol bu jeex da koy wax wax man ndax ma bu ma sama xol bi jeexee dama ciy noppi de dama ciy noppi ah, sëñ Abdou Salam Sarr maa ngi lay siyaar sëñ Abdou Salam Touré wala Sarr Touré maa ngi lay jaay jëfal di la kontaanee di kontaan ci képp ku ñuy bàyyi xel mi ngi Cees gii mi ngi Cees gii tey ci samedi bi ak euh, suba ci dimanche bi yëpp taarkaal la maa ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waay ca Mbour 1 waaw ca Mbour un foofu la ne waaw jërëjëf sëñ Abdou maa ngi lay bégee di bégee toute la mi ñoom ñoom yi ñaari alaaji yeeg ñoom Ardoog Amadou Papek maam Moor ak gaa yëpp gaa laa bégee waaw fu waay ne rek bëgg naa la jox sa wàcc waaye Assane ñoom ak Babacar ak déggal waaw bi ñëpp la am xaadim ñoom ak pël bu gàtt bàyyi daam boroom njëre sama xarit Maguette Touré ah waaw Maguette Cissé madame Touré borom bës bi merci ah juma borom faas juma maa ngi lay nuyu. Ami Diop ñoom ak Kumba Gueye ñoom ñëpp ak Kumba saa moom bëgg naa ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay di leen di bëgg waa pirum ndër yi gàmmu ga nee naa leen une semaine après gàmmu teewoon la nan ko waajal bëgg waa Gosaas waa FIFA ñoom dañuy finaalu tey chapeau à vous FIFA maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaane groupe de jeunes la boo xamante ne groupe la boo xamante ne ay jeunes ñoom ñoo ko taxawal bokk ndey bokk baay doon benn ñoom ñooy waa grand cœur rek mooy ñi ma sargaloon daaw benn la rek mais groupe la boo xamante ni sincèrement bon ay boyu boyu boyu boyu boy yoo xamante ni ay royukaay la ñoom Daouda Bouba Ndiaye Diop sama gars yooyu yëpp tarka la ay ay ay boy yoo xamante ni ay royukaay lañ ñu ngi def liggéey bu am solo ca Gossas merci beaucoup à vous chapeau bëgg naa leen jox leen seen wàccuwaay. Ah, waaw kon gaa ñi ñu joxante di daje ba suba ak jàmm yàlla ko yàlla def ci réew mi defal ko képp ku ko nekk ci réew mi wala ca bitim réew ay moodu yi kenn du ñoom sonoon nañu lu nu am dang dang suba ngoon guddeeg bëccëg lu ñu am yónnee senegal jënd saakub ceeb ba mu jeex te doo ci lekk jënd fay courant ba ba ba facture ñëwaat te doo ci taalu loolu metti na ah fayum ndox te doo ci sangu ba ciy naan mitti na waaye dañ dañi rek jënd ay lal yoo dul tëdd ah jënd ay sañsa yoo xamante ni boo ko gisee dañ koy sinap envoyé la ko ci metti na de metti na lool jënd diw yoo xamante ni ca yaramam yi ne boo ko boo ci tegee sa loxo bala nga ko cee tegaat yàllaa xam moo tax jabari moodu moodu yi waaye dimbali leen war ngir yàlla ngeen gëm yàlla waaw gëm yàlla doylu kay ndax gaa ñi sonn nañ ci biti de sonn nañ lool ci biti ñu leen di dàq fii boo amul këyit foo fii boo leen séenee nga daw euh, dawaat fee dawaat fële fii ki naa faakati na loo yor taw gaaw yónnee li ma yor xaarama daaw gaaw yónnee ko Sénégal moodu moodu bala moo xelam di dal dëgg dëgg dëgg dëgg daa yónnee xaalis Sénégal kon nag gàcce ngàllaamaa yéen jërë ngeen jëf tey moom mention spéciale à sama revue de presse tey bi yéen laa ko jagleel tous les Modou Modou du Sénégal jërë ngeen jëf fu ngeen mën a nekk ci continent yépp nag waaw Omar Amérique Asie Europe fu ngeen ne Afrique fu ngeen ne rek ah waaw moom ah, man nit boo génnee sa boo xasee ba génn Sénégal rek Modou Modou nga nekkal marok wala nga nekk Gambie sama yoon Modou Modou nga ñëpp kon jaajëfal naa leen xoolal kii di ma wokk naa ma am na ñu nekk biir Sénégal dañoo Modou Modou yee yam ndax bu ñu demee seen kër bala nu faa demaat weer mbaa at. tabaski ba tabaski ah ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal jëfal ah, waaw segam da ngay nuyoo rek te ay muudu muudu ngay niiw te boole nañ ñoom seen bopp ci muudu muudu yi nga béggee leen ñi ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf yàlla na ko yàlla def ci réew mi defal leen jàmm defal na ko defal nu tawféex ak taysiir merci.